Yes, my guy, welcome. This is another time, another Korka Street Talk. Today we are right here at Sukuta. We are heading to Sukuta. Huh? So let's see. Tell next my cameraman, me monek Mustafa Kinte, Baba Kinte. Mustafa Kinte, yo nak, dama problem ak yow. fii nga dem Badibu, nga jëndal laadum. Sa xar bi laadum la. Nga rey xar bi, mayuloo ma boppa bi, mayuloo ma dara. Mustafa Kinte, why are you wicked? Why? Lu tax nga soxor si man Mustafa Kinte? Huh? Ah? Cameraman, bi tey ma nekk Mustafa Kinte, suma driver bi mooy Alaaji. So, ah, loolu rek Alaaji Cissé mooy suma bi tey. suma caméra moom mooy Kinte Baba Kinte kii seti Kunta Kinte la waaw Moustapha Kinte boo leen gis so lu ñoo def mooy ah, suma gaay waa Inco ak xoolal nañ dugg biir town ñu xool nañ dugg si biir ñu dem. I'm going to ask you a question and you ask me another a question again. Huh? Okay, go on. What is your name? My name is Nafi. Nafi, okay. We, am I going to ask first or you're going to ask me first? Go on. Who is the first white man to visit the Gambia? First white man mm -hmm. to visit Gambia? Yes. yes. Was. um. it's, it's a tourist there. a tourist? Yeah. What is his name? I forget the name. Huh? I forget the name. You forget the name? Okay. Uh, do you know Kunta Kinte? Do you heard of Kunta Kinte? Yeah. Which side of the Gambia Kunta Kinte come from? Kunta Kinte. Hey. Around that end. Where? Um, around Fort Blen. Around Fort Blen. Yeah. Ah, okay. Thank you. Now. Now I from, want to ask. Okay, you. yes, if I'm ready. Now, from from 2017 up to date, how many vice presidents we ever have? Vice president. Yes. Two. Who and who? Name them. I don't know their names. Salam yaa ngi I'm not a Gambian, you know that. You are not a Gambian. What are you? Jamaican. Jama what? Jamaican. Jamaican. Uh, which school are you attending? Reverend J.C. Fay. Reverend J.C. Fay. Aha, Reverend J.C. Fay. In which, uh, uh, what was the role of Reverend J.C. Fay in the Gambia? The role of Reverend J.C. Fay? In the Gambia, yes. In the Gambia? Yes. By the way, yeah. I was a newcomer. By I the mean, way, you are a newcomer? Yeah. What do you mean by you are a newcomer? I just. I do you know, know Jesse I don't know Jesse Faye that much. You don't know Jesse Faye that much? Yes. Do you heard of Jesse Faye? Yes, I heard of him. What was his role in the Gambia? His role? Uh, huh? Mm. Uh, I forget. Yo, same principal din la <laughs> Okay, now ask me your question. the question is like, uh-huh. uh, let me say it in In Mandinka? In Mandinka because I don't know how to say it in English. That's why I want to ask you. Like comme um, fourne naka lañ koy waxee si anglais. Fourne? Waaw. Hot pot. Hot mm, Really? Yes. Oh. Ak lan? Um, bàyyi nine times nine minus 10 plus 10. 9 times 9. Minus 10 plus 10. Minus 10 plus 10 is 18. Huh? 18. 9 times 9. Wow, 9 times 9. Ah. My 9 times 9. Wow. Uh uh, uh, uh, uh, minus, uh, minus, minus 10 plus 10. 99. Jërëjëf. Hello. Hello, hello. Hello, Lendi Daw. Naka, how are you? Fine. What is your name? Mariama. <laughs> Mariama. Mariama, why are you running? Nothing. Dara. What you like there? I tell you, then you play being a game. I will ask you a question and you ask me a question. That's fair enough, huh? Who will go first? My question. Okay. Who is the first white man to arrive to the Gambia? <laughs> You're not asking me, you're asking her. No, I'm asking you. No, no, no, ask her. Uyu. I am camera shy. Uyu. camera shy. How about you? how about it? Now your turn. Alright, your turn. I should ask you a question. Okay, should I ask you? Yes. Well, come here. Why should I come? Come on. Laka, Laka, Laka, English. Uh-huh. Um, when was the Gambia became republic? What do you mean, republic or independent? Republic. 1970. 1970. Okay, good. Uh -huh. Thank you. How about you? No, I don't have any questions. Huh? What do you buy for eating and you don't eat it? money, money, money, huh? money, hmm? money. You buy money for it. You do you buy money? No. No. Okay. Who is the first white explorer in the Gambia? I don't know. Huh? Eh? Now your now your turn. You are ask the other one. No, I'm okay. I have only two. Ah, okay. Who next? Yeah. Hey! Name name name three name three animal without backbone. Without a backbone. Without a backbone and spider, tames, and spider tames. Tarap. pousse leen hey pousse leen waaw pousse leen yow yaa tudd nag. Mariama laaj nga ma fayal dama laaj beeg sax. nine times nine. minus ten plus ten. nine times nine minus ten plus ten. is ninety. is ninety correct. danga rab rabal no hara kim pare acha nande dagale obu dagale obu basgul ala kilin kolong saja bum videne ngo dur bem dohot be bu be ko ram fo 2020 singapore is not about the government sitting to fire the volume and to magede nyume son do hakurang so bahe nyume son one two big yosus sande mi andi way du ko bu sewi ne ngo sul te bayu wabi ni government cha cha cha cha cha no no no no degun ko no degun degun no degun ko degun ko degun ko kai wale yo hola ne ko my space may nañ ko mu space may nañ ko space waaye da ngeen di may ndóo bi space kay. non ay bàyyi leen waa léegi rappal ñu dégg. bu dagaloo bu dagaloo be asgul ala kilin kolong saja bum fide ne ngo dorbe mdot be bonyan nya be ko aram fort 2020 zinga bot is not about the government citizen to violent development en su magede ñu meso ndo kuram su be ñu meso one two big yosus was and them and the way you do wa bu se bi ne ngo su te be you wa bi in government yeah tarab ya yu ma lo de fi ah man man essence bi laay liggéey. waaw ah ok. waaw essence ban moo gën a diis. ah gasoil a de. gasoil moo gën a diis. waaw moo diis si parce que dafa diw dafa gis dafa ah, diw. waaw ah, yow ban tubaab moo njëkkee ñëw Gambia. tubaab. waaw. loolu ah, waaw. Kunta fan mooy dëkkam. Kunta Kinte. ko Bakaw. waaw mooy dëkkam ah ok kon waa Baxaw Kounda Kinte foofu la dëkk léegi. waaye saa booy. kan mooy di first white man bu njëkk a ñëw Gambia. waaw kooku Mango Pat la. Mango Pat. waaye kon ka yow laa sewuloo ma naka laa tudd. ah ok waa naa nga tudd bro. man ok Elda lañ ma de. Elda ah booy yow Elda nga saa booy yow Elda nga. ah Elda ah. yeah who is your favorite Gambian artist. man both ST and attack. ah Tarap yaa ngi baax. yow la gën Kounda Kinte fan la dëkk. Kounda Kinte lam dëkk. fan si Gambia. ok Jufure ah. around naka Jufure and. Ah. ah ok ma fa ne la. <laughs> non Konte. Siaka Konte. yes. ok fo i bota le bang. non mo mo kombo gunjur kombo gunjur ko on koroma la konte dabana. alay konte wo mun wo mun onkul kendema atele ka atele ka ah, Sadio Dinna. ah, ah Efre Konte. ah ah kombo gunjur dabana ni. barka. ah ah. juma le folo na nata gambia jam e ko kante ma wolon de ah ha ye konta kinte lone kunta kinte kunta kinte le barinte ma malon ah, ha e le ha abo abota munto gambia ma fana abota gana jufre jufre ah, ha abota jufre ha ah okay yes okay ah ah, ah kabring kabring ah ah baro la la, la jamono ko eh, anata minna optay mo vice president jelu le soto ah nte ngam men kalamta vice president mo saba saba ah juma ni juma eh eh fenke musunni onyi eh, fenke atodum eh loya dabo mm-hmm. ani eh eh badara juuf uh-huh. ani eh eh muso nyi wala hakilo bodo wala tola dal okay thank ah, you okay yeah so i want to know uh from from from uh 2017 up to date how many vice president did we have uh let's see Kanaji dem sukuta. Baba Kinte. nga daa sukura ban maam dere yo si nga bokka xoolal yàlla ñu laa fekk fii every day amin amin allah amin amin amin amin amin amin yow itam yàlla nga am sa télévision di bokk bu def fan ak wér ak taranga sutura ak éwal gu bare bare si darajay Seydina Muhammad yaa boy ah? yow tey soo naree advice xale yi si jamono buñ nekk ni looy wax gaay eh lama ana ñu góorgóorlu rek te bañ a def lu bon wax lu bon ñu jigéen di di sol lu baax toppa seen ndigali kilifa kilifay ñu góor ñi bàyyi tux bi te bàyyi yuutal bi yuutal tubéy bi baaxul dara nañ bàyyi yuutal tubéy bi le bàyyi tux bi te toppa ndigal bàyyi dem guddi dox guddi ba boor set soo te tegee wante ga nga tëdda kuy dem guddi yaay soo yóbbu di nga indi sooy dem soo yóbbu rek lama di nga indi ñu dee si internet bi nag bon su bay naxari lama nii bu di saaga ndey saaga baay fu mu di toog di saagante gis ko ba léegi dañoo saaga kilifa diine yi di leen budil saaga dinaa nangam taan sa ni dinaa def sa ni dinaa def sa ni lama loolu wax kaddu gi sax ñaaw na ah, xamuñ sax ne saaga saaga saaga bàkkaar la saaga kuy saaga jéeme ngi du am barke ba pare saaga sax bàkkaar la baaxut baaxut ah, gis naa ñu jéene seen di saaga bi tane na di ah. saaga bi tane na di jigéen ñi jéene seen cëri pang solde naay ci solde rose bu siitur bu lifin sànke too ubbi sa ñaari tànk yi si jigéen. ah sutura amatina. amatul de fu yàlla def lii. waaw yàlla fu mu ko jënca. ñaari tànk yi fu mu soo nu mu soree. Ah. nga jéene ko won ko àddina. Ah. yow sa sesetaat. sa doom sa rakay sa nijaay sa mag yi di ko xool. ñu ne dof du rus waaye mbokk yaay ak gàcce. waaw waaw ah, ñoo ko déggandoo de ah. sun Yaaboy. Ah. yàlla na fi yàlla bàyyi suñu kanam kinte. bu si dugale. ah kuy sa ñëwkat nga yóbbu ma fa. ma fa. la. ah ban tubaab a ñëw Gambie. kon ka ñëw maa seetaan yow tamit. ah yow yow tamit ni dañ laa seetaan di ah ak sa sanse yëpp Charles Taylor moo njëkk a ñëw fii. Charles Taylor moo fi njëkk a ñëw. waaw. ban tubaab moo fi njëkk a ñëw. da dang ma miin da da nga maa defal ex te loolu bañ. nga ne kan ban tubaab moo fi njëkk a ñëw. Charles Taylor Charles Taylor. wrong. ok ah, am nga Kunta Kinte. am naa Kunta Kinte Kunta Kinte fan la dëkk ban boor ci Gambia. ju ngi dëkk Jufre. Ah. waaw ah ok léegi. Ah, nguuri Adama Barrow. from 2017 ba tey fu ñu nekk ni. ñetta vice President la Musa am. ñetta. ñetta. Hmm. Ehm, Aliou mhm. kii Badara mhm. ak Farmata uh-huh. ak ku ees am ni something Diallo ah, waaw jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum asalaamaaleykum salaamaaleykum hello ma yes Baba la commando xoolal tey nag dama dox nag ba desee Baba la commando one day dafa musa bindee Facebook mu naa ma ne I want to watch football but this policeman is on TV my kids ah fans ana kasi kana oke, okay baba la ko man ah. i have few questions for you no no no man mau lagi questions. question man bokku ma sa program sa fans yaa ngi lagi laajal gaay eh. da nga daw ban daw ma di da nga daw bokkuñ generation ñi déedéet bokku ñi ñi ñoo la follow so yo do dee follow non man duma dee follow man ñi la dee ñu la follow man yo ñu la follow ah okay waaw ah, ñu ngi ni laatir mu ngi ni laaj ko question <laughs> waaye Big man yaa ya, ngi ah. kan si yéen mode dee ya, ayee ya, baaba pour seetaan télé fekk maa on. <laughs> yow la kenn. ah ok ah man daal dañ fi yaa suma der. ñu ne man maa de maa ko dee tere seetaan football. bot yaa ngi ko. léegi rek maa la teg correction ma la teg la pare nga léegi yow la tema foos. ah ah. ah. ah ah ah ah ëllëg nag baawaa du la yóbbu school de anti tamit du la drop soo soo a school du a drop ëllëg da ngaa da ngaa fay paas wala nga rox nga dem wala ñu si sa bi waa léegi. man ah. ma la tala benn question xam nga Kunta Kinte. waaw ah. Kunta Kinte fan fan la si Gambia fan la jógee. Eh, ah. ok nañ ko romb xamuloo ok léegi ban tubaab moo njëkkee ñëw Gambia. Portugis, Portuguese. Portuguese. Iya. Yeah. what was his name. ah. no. Aha, baba. Andy, Eric buka jual lunch Buka drop school Mana tangga, Mana? Eric, dengan apa nga pedal school ada Eric. Dah, sa mau lagi gën Dengan baat da nga baat baatlu ele dem school Oke. Ya, semua gaay kau mau xamal this show is sponsored by Inco rush now and get your all your building materials ah any métier mun di nekk rek soo nekkee caméraman in ko am nen dara pour yow yes on jarama dey aha kono woni welde ɗo no ɓen ɗon yo jam jantum aha kono wonno yeyde ɗo Hey. Met de je tiga saade. Hey. Met je pom. Hey. Met de je banana. Hey. Met de je pia. Ah. je mandarin. Ah. Ala yate ina de yo soda. Yo soda. Yo berbe. Awo ah, soda nete don. Ko adama min nete. Ah. Adama sidibe. Adama sidibe. Eh. Adama sidibe ko on woni fini weli foƴƴi mettijoji ɓurti welde. Ko on woni fini weli. Fini weli foƴƴi mettijoji ɓurti welde on won ɗum. Ko lemunne. Lemunne woni ɗum. Ko lemunne woni ɗum. Honno woniri lemunne. weli. joji ɓurti welde ɓurti welde hmm. e eh, ko lemunne lemunne no ah. welde awa ah, joni faala wolo ɗum ɗo temu takarnase mo melni temere yomba si butel yomba si butel temu takar yomba <laughs> temu takarnase mo melni temere yomba si butel temu takarna ah, temu yomba si butel kinte nañ dem <laughs> jërëjëf international góor yombul international. waaw waaye du see góor yombul. <laughs> man. daan maan la daan maan waaw. ban tubaab moo njëkk a ñëw <laughs> a ah, boobu nag xaw ma ko de. Ah. billaahi. da nga dégg waaw dama ko dee dégg. Ah. Mhm. ok fan la fan la jógee si Gambia. ban boor fan la jógee. Hmm. maa ngi doon seddaan fii moom nag boo fàtte naa dëkk bi de. Hmm. Mhm. from 2017 up to date ba 2017 ba Wow. Nyata vice président la la Gambia am ñaata vice président Nyar. kan ak kan eh, am na ku am not ku gaañu but I forget the name ah, okay thank you okay from 2017 up to date how many vice president did we have mm, very yeah 2017 up to date yes think it's three. Three. Do you do is from which side of the Gambia? Mm. you. Thank you. Man Aliou. Aliou. From to date. ñaata vice président leen ah ñaar laa xamangum Aliou Badaga keneen ki moom xaw ma kooku dee dégg Kounda Kinde. Kounda Kinde waaw dee dégg. Mhm. Kounda Kinde ban dëkk la jógee si Gambie. ñoomi moo njëkk a ñëw de. ban tubaab moo njëkk a boobu Fana fa man si ngaate la de. ko paak koy mu ko paak. 2017 up to date ñaata vice président Lenam. am. waaw ma kor la. salon bi naka la <laughs> salon bi Rofi la tudd. Rofi Rofi. Rofi. Wow. Rofi Rofi Asien Rofi. Rofi Rofi. ah O F I E. R O F I waaw. xanaa sa waaw sama tur bi la. ah waaw. ok léegi dama am few questions eh, ma. baalal rek baalal ma rek ngir yàlla. baalal rek baalal ma. ah waaw. Ah, daw nii ak nga leen naysee. ah man dama dem bugg may free advert di. ah yéen maa ngi ñëw ba fii kenn bëggut a wax ah, man. ah. ah non non non non. Tamba lo. ah eh. up to date moo lay vice président jëlu soto. tout à fait. from 2017 hani sign. ah. moo leen vice président jël Lesotho tout jumaani juma amin Fatoumata Jallow Tambajang up who is the first white man to visit the Gambia well actually I ah. ah, ah, vice président jël Lesotho Singswell Kabir Muntuma. From 2017 up to now. Saba. Ah, Mani Juma. no, obviously, inte to for no like. Ah. Mm. Ah, okay. Okay. Ah, uh, nying kunta kinte boda mindo. Nyomi Jufre. Yeah. White White man Juma le nana visit Gambia jam first. White explorer. No more. Assalamu alaikum. Ah, yan salon bi nice nadi. Ah, ara man tama nyum man sa xam nga dafa am jaan si airport bi dafa nataalu ba miss flight waaw waa Sukutal la nag abuta Sukutal abuta Sukutal ah ah ah itoo dum nte Birgis Jallo jeri tanala jantu seeda rek seeda rek <laughs> eh. Gambien waaw hmm. ban tubaab bi moo njëkk a visite yéen nag doo leen sensé nii ah yow kuy sa ñëwkat bi yow sa sensé bi sa nice na. Jaaray Creation. mooy suma ah. Mhm. Ah, ma ñëw bi jëla ah, so su ma fa demee dina ma mën a ñëwal dina ñëwal góor. waaw mun na ma ñëwal suma caméraman bi. waaw mun na ko kay. Mhm. ah ok yow xam nga Gambia. déedéet xam nga Gambia. yow foo <laughs> mooy borom salon bi kon. loolu amul problème waaye man may waa baxaw wasa wasaloon wasa bojam wasa bojam e eh, bojam ba yaanam bojam ko le tamu kombo naka naka wa bojang bojang bojang ya ntem borta ba xawle yalong a a a bojang kundal mimbe ba xawle tamu korko day pulolti hmm. mulle wosotole bari boyankunal min ɓe commonoɗo ala ala kenol ɓe waafi ma ɓe waafi ala ɓe waafi ɗara sala jaɓa faare hani sa ni laftan stanga keñodi a ah. mhm. ah, ok ok say ah. ite ike mune keja nte yon kam me koble ke heya ibu kam down ke make down ka kele make down mhm. ani make up make up make midul dum make midul fanan ka kele mhm. ite mu gambenol haade yo gambiyalon damandindoro hmm. kundakinte ɓoramin du kundakinte ɓoramin <laughs> ಸಾಲನು ವೈಜಿನಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾದರ ಮಾಫ್ಲೆ ಹಾ ಓಕೆ ಸೈನ್ 2017 hani sa mo le vice president jelle soto fla juma juma <laughs> ah donc jama malam fa anyway malam hmm. fa ha okay tuba juma le nana folota visit ta gambel amakro malo ro malo non kinte bi moom baal ma génnaa bii rek sukuta waay waa sukuta doo leen ma rey Zoukoron gol, alkan kanam va? Kaba ale? Ah. Kaba kada da nyabi. Kaba. Nyamu ni mun keje. Nta tule. Mhm. Nga sukuro keje. Mhm. Nga ko keje. Nga maji keje. Nga sukuru wada keje. Abadi ale. sukur bane. sukur hmm. Sukuru bane, sukuru bane kaba kon. Mhm. Ito di madum fa. Nto mi yaay rek. Hmm. Ah, okay. Ye Gambia lon. ñaalon na kay domondi domondi i bota mu doma foy bota mu ñoomi lema mbota sukuta ja sukuta ja hmm. ah i konta mu bo jangli caam caam eh caam caam caam caam caam yaalon caam caam momo mi yaalon ko ala konta mu caam leti wo mu fulolti ha wo mu toña ah hmm. so so sa ya i sontale dama fulolti hmm. ah ni mu fulolti say ngo kuna kinte bota mindo kunta kinde ah jufure okay Cameroon 2017 mm. ani sai mole mole vice president jelle soto abai tes e dam fulal soto ay satu njay set Okay, abar ka <laughs> Ya, abar ka ba. <laughs> Eh, kinte. Eh, ibe e so la kabalan. Hey, ndeysaan abar ka way. Momo momo momo min lafta kabala. Ay nanan jang, sukura, sukura manokang ñing ay kaba di malé soto mustafa place o tandil le bang place o tandial ala aha furo la opposite dorom na ye yaay ñininka ala kaba yatal ha yata ba kale bang abar kayam ya ba ha ida mo adi sol ha denki la nga moy bang afay acha ngata bole me mata timbala me Nage bamba telo kakadura fala. aga bamba yabu. Hmm. Bamba suka suka beno. Bamba sebe muta kalo. Dani bat boya sukuta. Alaikum salam. Okay, itori man. Inde Mohamed Lamin Cham. Okay. Ah, yalon yalon gal ko Cham kundal be wol be mu fuloldi. Ha ha to jalam. Ah. Ah. ndelo fulol te mu caam demba la waaw ah. ah. caam demba banta so léegi ku sant caam rek pol la te ñun pol i ñoo ko moom waaw ndel mu caam demba la ti so ok ba je kunta kinte lon kunta kinte yes nga bota mun ma fanga jufure albreda yes hani sai mole vice president je lesoto e eh, ndo fono la fukana ta Fatoumata Fatoumata Tamba And then you have uh, Hussein Dabo. And then you have uh, uh Eseri Toure. And then you have uh, this guy, Mimbanta, uh, Juf. And then you have the. How many five of them? Yeah, that's right. Yeah. So, so uh, Portuguese Jumale followed another Gambia. Portuguese Jumale. No, Molo. <laughs> no. <laughs> yeah, thank you. Ah, thank you so much. Yeah. I mean, do you heard of Kunda Kinde? Do you know Kunda Kinde? Kunda Kinde, yeah, was the famous slave in, in Africa. Mm, okay. Where, which side of the Gambia Kunda Kinde come from? Kunda Kinde from Nyomi Jufre. Mm. You know, he came from Nyomi Jufre. Okay. From 2017 up to date, how many vice presidents did we have? How many vice president do we have in Gambia here? Yes. From, uh, from, from 2017 up to now? From 2017, we got five. Okay. Yeah. Can you name them? We have uh, SMGI uh, Sedi. Uh, we have uh, you uh, know, Fanmata Tambajang, something like that, and so on and so on. Okay. Exactly, yeah. Okay. Now, uh, who is the first uh, uh, Portuguese explorer to visit the Gambia? The first Portuguese explorer to visit Gambia. I thought it was Mungo, Mungo, no, no, Mungo Park. sorry James. laa bëgg a xam nga li a <laughs> <laughs> na waaw man de maa wax. ma foofu nag. waaw fan la jógee fii si Gambia. Jufre. ok in up to date ñaata vice président leen Musa <laughs> kon xamoo loolu booy. Ah. <laughs> naa ne naa ne. ah ok léegi moo njëkk a ñëw Gambia. <laughs> ma ne moo njëkk a ñëw Gambia. koor ka xam nga li xew. non non lu xew de. fii de yow wax ma rek. wax rek ah, ah, rek. rek nga wax. waaw maa jaay nga ne ma wax rek wax naa rek. si si yaba. waaw rek maa jox sa moo njëkk a ñëw Safarman. Hey! Safarman. Hey! Hey! so stupid. yes, my guy. Korka Street Talk la one. Lilale Amalonte nak. So you see, I'm right here at uh, Sukuta traffic light. So ñu ngi defar tali bi S nak. So dañ nekk di defar tali bi S. Gis ngeen tali bi ñu ko nekk di S. So driver daw leen ndanka ngeen dal ndanka. Ubi ko nak just temporarily pour ñu pur yon pour yoon bi yomba. But just daw leen ndànk ah ok Korkastu Talk Around lii laa leen amaloon tey what I was asking is from uh, from 2017 up to date how many vice president we have we have five five vice president uh, that's that was uh, uh, uh Dr. Aissatou Touré uh, Aissatou Diallo Fatmata Diallo Tambajang lawyer lawyer Ousseynou Dabo and and um, Dr. Aissatou Touré lawyer Ousseynou Dabo and Aissatou Diallo Tambajang Also, we have uh, Mr. Um, Juf, uh, uh, uh Batara Juf, and we have the current vice president. So we have five, five vice presidents between 2017 up to date. Five presidents, len from 2017 up to date, my vice, vice president, five la. So we were asking, which side of the Gambia Kunta Kinte come from? Kunta Kinte, according to history, Kunta Kinte is from North Bank, Jufre. Huh? Jufre, ah? Nyomi Gang, Nyomi, Nyomi, Nyomi, Fini, Jufre. So Kuta Kinte is from there. Also, we were asking who is the first uh, uh Portuguese explorer in the Gambia. It was Alfizo de Cadamusto. I once asked that uh, in 2000, back in 2019. Alfizo de Cadamusto is the first uh uh, uh, uh, Portuguese explorer to the Gambia. Alfizo de Cadamusto moo fi the first tuba Portuguese bu ñëw Gambia. so ñu doon la te tamit Kunta Kinte fa la jógee Kunta Kinte mu ngi jógee North Bank moo nekk Jufre fofu la jógee so li la lay amalan tey ci Korka Street tok bi suma caméraman bi mo nek mustafa Kinte Baba Kinte suma éditeur bi moy Assane Assane Koli ha ah. the only professional jola I ever seen moy Assane Koli suma éditeur bi so see you see you next time uh, but drive safe ha ah. li la lay amalan ci Korka Street Talk this show is sponsored by Inco please rush now Inco ñu ngi fini ci Sucre traffic light ñu ngi Jimpex four round gambe yëpp ñu fa so see you bye bye